barke borom kër Cheikh Awa Balla nekk ci kii waaye eh day suñu tool yi nga mën a xamal yow barke noonu bu mu def boo sa tàggatoo say bopp loolu bokkoo say bopp waaye li ma dàqal ci yow mooy doonu tool li ma dàqal ci yow mooy xam ne mooy suñu Cheikh Awa Balla li ma dàqal ci yow mooy xam ne ceeb na ceeb rek kot ndox ceeb loo dama ma jëkkër dem daal jëkkër borom daal bilaayi mooy góor ma ceebu faat borom makaama borom kiraama nii la jaaraama seetlu macha allah oh. Bagulho! Chama! Bagulho! maanaam xaaj taw joti fal yi jàpp bi alaj maam ci la Cheikh Abala si bàyyi tudd Serigne Cheikh Abala bàyyi tudd Modou Awa Balla ak Cheikh Awa Balla ak Sow Fatou Awa Balla ak dëkk mu ci kër ñan borom dëkk nga koy wooyee Awa Balla rax booj waaye laaj maam Thierno sa baay Serigne Cheikh Awa Balla maam Thierno Biraay soxna Fatou Issa Ndiaga Matar Lumbe Samba oh. Ayib Diop Ndiaga mi ñu tum mat ami ko ma sama gàtt dak am kay kan waaye ak oh. añ Cheikh Ibrahima ñu teral si te laaj maam Thierno Cheikh Aballa dama ko wax Cheikh Aballa ne nee ko fexe ba lépp ci réew mi moom am cër laaj maam Thierno Cheikh Aballa mu am ci réew mi cërëm cërëm waaye doom ji ma ko am na ma dëgg waaye daal nag seen jikko nag seen gëm nag seen ngor nag oh. may ngi daar naa ni ñu ngi kaas maa ngi romb léegi ñu ay marche ndax ne dama defal seen i brochette defal naa Jalal indi restaurant amul fay gratuit la tey may nga yaa ngay marche ñaa nga ne ah, booy nga man fii laa doon am ko am bala Cheikh Ibrahima mi dama de ko naa nga fekk may expliqué maa ngi bay loo jël loo boo sa jikko ko dak dëgg la loo jël loo boo ngor bi ko dak loo jël loo boo doom ji gàllankoor ba tax. loo jël loo boo capital bi nga am moo ëpp ko ci ak lu mu doy la. Serigne sequna ya jalaaluddin am nga imaani am nga islaami am nga ihsaani yaay jalaaluddin am nga tarbiya am nga tarqiya am nga tasfiya yaay jalaaluddin maam cerno sa Cheikh Awa Balla sama maam Ceerno Daaru Marnaan cey Jalaaluddin soxna Maget sama bintu Abdu Yaqin naaru soxna Ndey Mbàkke cey Jalaaluddin naaru soxna Ndey Mbàkke mu sëriñ Cheikh Ata mu Maam Mor Jaara borom saam Jalaaluddin Jalaluddin Nyai Jalaluddin Jalaluddin Nyai Jalaluddin Jalaluddin Nyai Jalaluddin Serin Syekhuna Serin Syekhuna Jalaluddin Jalaaluddin mooy Jalaaluddin sëriñ Seexuna Jalaaluddin Jalaaluddin mooy Jalaaluddin nee na kuy gindee day tegu ci yoon yaay Jalaaluddin am am nga islaami am nga ixsaani yaay jalaaluddin man sama baay ak saa yaay ñoo toog si kër Seexuna Jalaal di magal magal gi